mbokk yi ñuy teewlu ci waxtu wi ñu leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen di ko ñaan moom buur boobu di boroom asamaan ak suuf yàlla na ñu may ñu yeggali nag weeru koor gi ci jàmm ak salaam te nangul ñu bépp allahuma bu ñu wax ak bépp jëf bu ñu jëf ngir jëmmam ji yàlla nañu ko nangul mbokk yi xam naa bu fekkoon dañoo yëg train maa ngi wax ne léegi ñu arive ndax weeru koor gi li ëpp ci ay fanam daldi dinañ koy woor kon li ci des lu néew la ndax ñu ngi ci fukki fan yi mujj kon mbokk yi képp koo xamee ne daana rafetal daana def lu baax daana baril ay naafila ak i kooku na sant yàlla mi ko ko yombalal te mu wëy nag kontine ci yoonu mbaax ak rafetal koo ci xamit ne ci safaan la nekkoon sàgganoon na ba bariwul ay naafila sàgganoon na ba tayaloon ci def lu baax wala mu am ay njuumte yum ci def na gaawantu nag dellu ci suñu borom subhaanahu wa daldi daal tuub tub boo xamee ne tub dëggu la bëri lit li muy topp yàlla jéem koo jege xam ne buntu tuub buur bi subhaanahu wa taala musu koo tëj te du ko tëj nag ba keroog muy wal bufta bi ma ne wallahu yuhibbu tawaabiin yàlla dafa bëgg jaam bi su defee ñombe su wàccee raay bi mu daldi di nag tuub jëm fa moom yàlla mooy ki nga xamee ne borom mànde la kon mbokk yi li des ci fani koor gi bëriwul fani promotion bi léegi mu jeex mbokk yi train bi léegi mu egg nag destination kon war nañoo gën a góor góorgóorlu ci def lu baax gën a góor góorlu ci jéggalu ay bàkkaar ndax day képp ku jéggalu ginnaaw bi mu tooñee suñ borom teg ci nag mu rafetal dina fekk buur bi moom ku mën a jéggale la waaye ku mën a yërëm la te yàlla dina ko daal di baal demal ci alquran faman taaba min baadi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatuubu alayhi inna allaha gafurun rahim te buur bi subhaanahu wa taala mu ngi wax ba tey ne wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan summa htada yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ñu ne mu ne suñ borom subhaanahu wa taala dafay wax bis bu jot ana sama gaay yi ana sama jaam yi nga xamee ne démb ci guddi dañoo juumoon def ñombe bëccëg bii nag dama leen ci jéggal wala mu ne ana sama gaay yi nga xamee ne bëccëgu démb bi def nañ ci njombe tey jii nag dama leen di jéggal man maay ci mën a jéggale te bàkkaar bu ni def su ma ko jéggaloo rekk ma daal di koy jéggal mbokki jullit yi kon euh, tey li ma bëgg a waxtaanee mooy muddum koor mu nekk euh, farata boo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne suñ borom subhaanahu wa farataal na ko ci bépp jullit boo xamee ne koor gi fekk na ko fi bépp jullit boo xamee ne koor gi fekk na la fi donte ke benn minute la su boobaa yow muddum koor dafay war ñu génnee la ko wala nga génnee ko kon damay wax ne muddum koor war na bépp jullit buy dund moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la dama bëgg wax moo xam majeur na walla moo xam majeurul moo xam góor la wala dañ koo moom muddum koor képp kuy julli rek daf laa daal war moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne Euh, yàlla farataal na ci yéen muddum koor ngeen war ko génnee nag lu njëkk ngeen di dem julli ji korite euh, kon mbokk yi ki nga xame ne dafa am doom euh, ci biir weeru koor wi gone googu dañ koy génneel muddum koor képp koo xamee ne bala ñuy wax ne weer wi feeñ na pour korite am nga doom rekk gone googu dañ koy génneel muddum koor waaye képp koo xamee ne ci biir weeru koor wi ci la génn àddina kooku du farata ci moom ñu koy génneel muddum koor euh, gisoo ne boroom xam-xam yi daanañ génneel sax seen soxna yi nga xamee ne dañoo wann lor donte ki ni imbeeguñu sax gone googu dañ ko daa génneel muddum koor waaye nag du farata ci moom waaye lu ñu sopp la soo ko mën mënee nga daal di koy nga daal di koy génnee ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne farada zakat al fitri min ramadan ala kulli nafsin min al muslimina ala kulli xaalin euh, mbokki jullit yi donte que ne nit ki dafa nekk pauvre amul nit ki dafa nekk pauvre amul ba moom dañ koy jox muddum koor ci liñ koy jox moom da cee war a génneewaat muddum kooram ak muddum kooru njabootam ma ne nit ki bu fekkee ne dafa ñàkk ba dafa yeeyoo pour ñu jox ko muddum koor liñ koy jox muddum koor su fekkee ne mat na ko añu bisu korité ak reeru bisu korité moom génnee muddum koor daf koy daldi war ala kulli xaalin muddum koor képp koo xamee ne yow yaa ko yilif añam ak reeram yow la war yow yaa ko war a génneel muddum koor borom kër gi moo koy génneel soxnaam moo koy génneel njaboot gi li fekk añ ak reer moom la war ci ñoom donte gën a surga bi nekk ci kër gi la wala kiy liggéey ci biir kër gi su fekkee ne ci yow lay añee ci yow lay reeree yow yaa ko war a génneel muddum koor doom ju jigéen ji nga xamee ne danga kaa may boroom kër te moom demagul sëyi mooy génnagul sa kër Euh, demagul kër borom këram kooku yow yaa koy génneel mudum koor yow bàyyi ji ndax muuragoo ko mu dem sëyi waaye nag su fekkee ne xës nga kaa muur ba mu dem sëyi rek mudum koor boroom këram la war waaye waratu la ala kulli xaalit même moom moomu nga xamee ne sëyagul boroom këram su ko génneele mudum koor dafay daal di wàcc itam li nga xamee ne moom mooy baay ji gone yi nekk ci biir kër gi di liggéey di yëngul ci dara yow baay Euh, fexeel ñu génneel seen bopp mburum koor ndax loolu entraînement la boo xamee ne danga leen koy defal ndax ëllëg ñu mën a xam mburum koor kan la war ak nag la waree ak nan lañ ko war a génnee loolu yëpp day nekk entraînement ci moom kon gone yi nga xamee ne ñu ngi liggéey te nekk ci biir kër gi fexeel li ñu amas néew nga wax leen nañ ci génnee mbudum koor ndax loolu entraînement lay nekk ci ñoom mbokki jullit yi ba tey muddum koor dafay dagan ci ab jullit mu génnee ko quelques jours avant bisu korité bi ndax boo xaaree ba bisu korité nga daal di koy génnee ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko aajowoo ñi nga xame ne ñoom ñooy borom muddum koor yi mooy ñi ko war a nangu dañuy am jaaxle ndax duñu xam lan la ñuy jënd pour sol ko duñu xam lan la ñuy togg duñu xam lan la ñuy def waaye bu ñu ko jotee quelque jours avant su boobaa ñoom dinañ mën a préparer ba mën a jënd li nga xamee ne moom la ñuy soxla ci bisu korite gi mudum koor mbokki jullit yi yonent dafay dagan ci doomi aadama mu génnee ko nag xaalis remplacer ko lu mel ni ceeb wala tàndarma wala dugub la nga xamee ne moo ëpp ci la ñuy dundee ci dëkk boobu mu remplacer ko xaalis xayma ko génne ko dafay daal di dagan ndax boroom xam-xam yi dañoo wax ne su fekkee ne faqir bi walla miskin bi ñëpp dañoo dajaloo jox ko ceeb te fekk moom mu soxla yére dafay dem jaayiwaat ceeb bi pour mën a jënd li nga xam ne mooy ay yére walla ndawal kon nag nga jox ko ko directement xaalis su bëggee jënd ceeb mu jënd ceeb su bëggee jënd yére mu jënd yére lu mu soxla mu mun cee def ñu ne loolu mooy li nga xame ne moom moo daal di gën kon nag mu dum koor buñ koy xayma damay wax ni mu ngi tollu ci deux kilo quatre jàpp deux kilos sept cent wala ba trois kilos ci noonu lañ koy xayma boo génnee lu toll noonu rek yow am nga muddum koor boroom xam-xam yi rek dañ ko arrondir wax ne boo génnee trois kilos moom def lay wóor ne am nga muddum koor loolu moo tax fii ci Italie ci Europe xayma nañ ren eh, ne muddum koor bi six euros la. ci bopp bu nekk kon mbokk yi mudum koor mu ngi noonu nañ leen gaaw génne ko ndax seeni borom mën a préparer nag seen korité waaye mudum koor moom li muy jëriñ laa lay wax te foofu lay tëje mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na gàkk-gàkk yi nga xamee ne am na ci koor gi nga def mudum koor moo koy seetal wecc ba mu dem nag fa asamaan fa suñ borom subhanahu wa taala ku génnewul mu dum koor sa koor dafay tage diggante asamaan ak suuf waaye boo génnee mu dum koor nag rëcci rëcci njuumte yi nga xam def nga ko ci koor gi yëpp mu koor gi da koy fóot ba mu set daal di koy nag toxal mu dem fa suñ borom euh, subhanahu wa taala kon mbokk yi mu dum koor su ma lay répété damay wax ne bépp jullit la daal di war ki koy génnee nag mooy ki nga xamee ne añ ak reeru waa kër gi yow la war yow yaay génne muddum koor kon bépp jullit boo xamee ne koor gi fekk na la fi korite gi fekk la fi yow muddum koor dafa war nga génne ko wala ñu génne la ko moo xam góor nga walla jigéen nga mag nga naw nga góor nga wala dañu laa moom xatta ki nga xamee ne dafa desee xel ki nga xamee ne dafa desee xel moom it dañ koy génneel muddum koor mbokk yi yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp defal leen ko yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñun ñëpp ñu daal di koy topp mun yaay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu wan ko ginnaaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.